soxna si Ndeye Marie Thiam jéeju ñu ngi lay nuyu. xëy naa la. voilà yow ngay coordonnatrice plateforme des femmes pour la paix en Casamance di société civile euh, ñu daal di diiru ñaari semaine euh, gis ne euh, suñu réew amaloon nañ fi ay campagne électorale di waajal ay élection teritoriale ci dibeer gi tey nan nga jàngatee justement campagne yi ci diiru ñaari semaines yi. xanaa damay gën a taxaw ci mbirum Casamance. Mm. ndax fii fii laa nekk. Mm-hmm. fii lay gën a suivre élection bi bien que maa ngi xool tamit lu xew feneen. Mm. ñun fii en euh, Casamance euh, ñun plateforme des femmes ñu ànd ci ak yeneen organisation ou société civile. Mm-hmm. dañu fi euh, moo ñoon benn projet ñu tuddee campagne de sensibilisation pour des élections apaisées. Mm-hmm. ñu liggéey ki nag parce que li ñu li ki loolu sax dafa fekk li ñu dund mois de mars bi. looloo ñu jaaxal ba ñu ne élection yaa ngi jot du ñu toog di xaar. Mhm. nañu ci jóg commencé sensibilisation bi. Mhm. donc ñu door ko sensibilisation bi waxtaan ci ak ay kilifa waxtaan ci ak ay continuer nag ak coalition parti yi euh, ba ñu yeggee ci chef de chef de coalition tête de liste yi. Mhm. ñu signé ñu ñu def leen pour ñu signer benn charte de non violence ñu nangul ñu ko également. jaar nañu fi sax ci benn campagne de benn mobilisation sociale bu mag a mag donc loolu yëpp def nañ ko ba nga xam ne ne vraiment dañoo ñu ngi sant yàlla parce que dafa mel ni nit ñi dëggaluñu dëggaluñu suñu kàddu yi nit ñi jaar nañ ci parce que tente liste ñi dajeel yëpp ñooñu ñëpp dañoo wone seen seen euh, décision wala euh, def élection mm-hmm. campagne électorale u jàmm mm-hmm. loolu lañ ñu woon ñu wax ñu ko également que ñoom amuñu benn intérêt pour que vraiment safara taal ñu taal ci safara bi biir Casamance et que ñoom ñëpp dinañu fexe ba seen campagne bi ñuy def ñu doon campagne boo xam ne ne vraiment campagne yu jàmm kàddu jàmm lañ fay yëkkati discuter wax mbirum programme te bañ a laal kenn te bañ bañ a a xeex. Mhm. doomu kenn ki xeex également loolu mooy engagement yi tëddal yi si ñu dajeel nag wax. Mhm. ndax jàngat googu nga def ci Ziguinchor moom nga nemmeeku tamit ci euh, Sénégal wërngal këpp mais euh, gis nañu ne demeewul noonu. Hmm. ndax euh, li ñuy jàng ki presse bi di suivre ki rajo yi ak journaux yi. Mhm. mooy violence bi mu ngi fi. donc hmm. ci yenn dëkk ki yenn réew te vraiment man dama yaakaar ne. waruñu woon a yegg ci loolu. Mhm. ndax vraiment campagne électorale ak élection dafa bokk ci bonne gouvernance mhm. dafa bokk ci bonne gouvernance donc réew bu démocrate war na ko mën a def. Mhm. parce que ay moment la yoo xam ni population bi nag war nañoo mën a wax ni ñun kat kii la ñu tànn pour mu jiite ñu. kii la ñu bëgg pour mu nekk fii ci suñu mairie. ñoom itam ñu ñu tamit euh, population bi mun a wax ci projet yu ñuy dëgg. ñoo ñu présenté ñu ay projet ñu mën cee am aussi ñu xalaat ci projet yi ñu dëgg donc loolu war a yegg ci violence en temps normal war ñoo yegg ci violence. mais malheureusement moom la ñu gis ci yeneen région te loolu ñu ngi koy naxarlu bu baax baax parce que am na ñu ñu ci gaañu ay aleelu jàmbur yàqu na ay oto yu yàqu Euh, ay blessé à l'hôpital ak yooyu vraiment war ñoo woon yegg kilo foofu mhm. mais en tout cas ñu ne à Ziguinchor ba tey ñu ngi sant yàlla yaakaar naa ñu ne les pentalistes yi ñu fi am dëkk nañu liñ leen wax te euh, te ñu ñu ngi koy jëfee daal ba fii am na ay diwaan yi nga xam ne njàmm lañ fa gis ba nu mu jeexee waaye tey am na ñi nga xam ne nee nañu jotuñu seen i carte électeur te li ni mel boo moyul mën naa am njeexital ci li nga xam ne moom mooy vote bi ñuy am dimanche nan nga ko jàngatee. waaw ñun yooyu tamit nañ ko. Mm. te biñ jotee aussi nañu dem euh, fekki autorité bi mm-hmm. waxtaan moom mais moom nañu bëgg jàmmam. Euh, que li ko fi teg moom autorité pour organiser élection yi. Mhm. mooy élection yi jaar yoon. donc amul benn intérêt bu mu bu muy denc euh, liste yi. Mhm. Euh, carte carte électeur yi. et que lu mu ko jotee noonu la koy distribuer. Mhm. yaakaar naa ni loolu la nekk di def ba tey. dem nañu seeti aussi waa SEDA waxtaan ak ñoom aussi jël seen avis par rapport a problème bi. Mhm. vraiment yaakaar nañu ne ba tey à Ziguinchor euh, liste yi carte euh, carte d'électeur yi ñu ngi koy distribuer nu mu waree. yaa ngi koy wax boobu ba tey yéen a ngi ci taxaw ngir jàmm mën a woy ci lepp élection tey ji euh, ci dibeer bi ndax plateforme des femmes dafa am taxawaay gi nga xam ne fas yéene na ko taxawaay euh, ngir nag mu gunge processus bi. waaw ñun suñu projet boobu bi ma lay wax campagne de sensibilisation. Mhm. dafa continuer ñu teg benn cellule de veille et d'alerte. Mhm. cellule de veille et d'alerte boobu nag dina liggéey euh, fan yëpp mu ngi topp coalition yi. suñuy membre ñu ngi ci biir coalition yi di ànd ak coalition yi di seetlu fa xew pour identifier loo xam ne mën na doon euh, ay gàllankoor wala mu mën a jur ay violence mm-hmm. comme ça ñu signaler ñu signaler ñu ko nu mu gën a gaawee mm-hmm. mais ñun liggéey sax ñu kenn parce que léegi ñu ngi ànd aussi ak wanet mm-hmm. ñu ngi ànd ak wanek aussi di ci liggéey ñu teg benn salle de veille ñu teg ay observateur nekk ci terrain bi di liggéey di seet aussi lu xew li ñu ko li ko li ko balancer ay information lu mu gën a gaawee ñu ciy jot comme ça lu xew rek ñu mën a ci jóg très rapidement ñu régler ay problème ndax taxawaay boobu ngeen am ci yeneen diwaan yëpp euh, fii ci Sénégal mm, non malheureusement mais dama bëggoon rek euh, euh, fii gërëm partenaires yi nga xam ne am nañu confiance ki ñun mm. di ñu accompagner ki loolu mm. donc yi malheureusement jotuñu ko jotuñu ko faa def parce que faute de moyen mais sinon ñu ngi euh, sëy ñu ngi Oussouye ñu ngi ak Ziguinchor di suivre mhm. tey euh, ñoo ngi wax tamit ne euh, ñu amal charte euh, waa société civile ay kuréel yu bari sax ñoo dajaloo amal benn charte pour la non violence ndax gis nga ne charte boobu am na njeexital ci jàmmarloo yi nga xam ne ñi ñaa ngi ko doon laam-laame ne dina am ci campagne électorale bi. pour ñun am na solo. am na solo. Hmm. te ñun euh, gis nañu aussi que pacte bi leader yoo xam ne ne toog nañu ak ñoom waxtaan ak ñoom ba ñu signé charte bi engagement bi ñu jël. Euh, ñu ngi koy respecté. Hmm. dañu yaakaar. Hmm. dañu yaakaar parce que sinon danañu gisoon lu gën a grave fii Ziguinchor wala ñu am ay xeex ak yooyu mais par la grâce de Dieu ba tey kenn euh, gisu ko fii ay ay ay histoire ay xeex ay sànniyante ay xeer a yooyu c'est des petits incidents la ñu remarqué par-ci par-là mm-hmm. mais vraiment sans gravité mm-hmm. te ñu ñaan yàlla loolu continuer noonu presse bi. donc pour yi coalition yi ñun ñuy nañu te ñu ngi vraiment appliqué loo xam ne engagement bi ñu jël vis vis de la plateforme. ñu ngi koy jëfee. ñu tey euh, ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ñoom it kenn mënu leen génnee ci dispositif euh, processus bi euh, gis nga traitement information yi durant campagne électorale bi nan nga ko jàngate. waaw loolu tamit gis nañ ko. gis nañ ko mais li ñu may chance fii à Ziguinchor c'est que journalistes yi ñu ngi liggéey ak ñu formation yi ñu def journalistes yi participer nañ ci. Hmm. te ñoom itam jël nañu engagement ne vraiment kaddu yu ñuy yëkkati dañu dinañu fexe bu doon ay kaddu jàmm. Hmm. vraiment du ñu taal safara fenn donc loolu aussi c'est important pour nous. Hmm. soxna si Ndeye Marie caam bokk nga CNRA gis nga tamit ne am na euh, ñenn ñu ñuy euh, tuumaal par parlo ba mu jar CNRA mu daal leen yónnee ay mise en demeure li ni tamit yan kàddu nga ci am. waaw loolu tamit gis nañ ko au sein du te ci suñu rôle la ñu nekk surveiller surveiller rajo yi ak organe de presse yi. vraiment su amee gàllankoor gàllankoor euh, Sénégal tout de suite daf ciy jóg wax ci. Hmm. donc euh, li ñu fi gis ba tey Sénégal yónnee na ay ay ay lettres. yoon bind na euh, organe de presse yoo xam ne xëy na ñu jënd nañu yoon yu jën yoon hmm. te jël ay décision loolu tamit c'est important c' important loolu ci liggéeyu Sénégal ñuy waajal ay élections comme ni ma la ko waxee dibeer gi ban appel ngay def en tant que membre de la société civile. xanaa di ñaan rek élections yi jaar ci jàmm. Hmm. Euh, jigéen ñeek organisation société civile def nañ fi loo xam ne euh, loolu la ñu yaakaar ne loolu mooy suñu rôle ak suñu devoir. Hmm. ñu taxaw ci. ma yaakaar donc euh, mun nañu yaakaar ne. élection yi dana jaar ki jàmm ne serait-ce que fii à Ziguinchor euh, ailleurs scélérat mi nga tudd aussi muy taxaw pour que élection yi jaar yoon dañu yaakaar ni sensibilisation yi ñu def rencontre euh, de d'opinion yi coalition yi tête de liste coalition yi dañu yaakaar ne ñun élection yi fii à Ziguinchor dina jaar yoon te duñu am benn contestation yi su résultat yi génne mhm. loolu la ñaan Mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax soxna si Ndeye Marie Thiam jéeju jërëjëf